waaw seet seet dafa bëri ay façon bi ma yàlla nattoo ma koy def des fois yaram bi dey tàng soxna si xam na ko nga ma woo ma ma ne la seetu ma noonu la yàlla bindee des fois ma seet seet bi may seet ci alquran laa koy seetee dama am ay aaya alquran yoo xam ne dama fekk mag ñi rabba ko naa génne dossier bi woon la euh, dañ ko ràbb juróom-ñaari aaya alquran la des dañuy lay laaloo benn ci xaraf yi dafay am néeg ñu détaché aay yi ci biir da ñëw rek ñu ne la laalal benn mais léegi comme jamono dafa soppeeku du ñëppay set duñ la ko laalloo da ngay ñëw rek ñu jël sa tur xool ban xaraf moo ciy ñëw ñaari yoon wala ñetti yoon méngoog aay boobu su ko defee ñu mun a jël euh, aay boobu xool ba gis la ci dinañ ko jaaree tam si biddiw parce que foofu moo gën a gaaw pour mun a xam euh, ban ban ban mbir mooy sa mbir ñu jaar ko si biddiw xoolal la waaye istixaar daal boo ñëwee wax ñu dañ lay laaj sa tur ak sa tur yaay bu sa tur ak sa tur dañuy détaillé tur bi koy tas xool xaraf bi xaraf bu nekk lu mu ciy wàññi ñu def tënk ko benn lim lim boobu ñu tas ko wër ko ci alquran suñ ko amee ci alquran xool lim boobu xool aay bu mu tombee balaa ñoo kii ñu jàng ko aay boobu loolu fànnu listixaar la am na ñu koy defee leneen ak leneen donte nag xam kat kuy xam da xam yu bëri am na boo xam ne da ngay ñëw ñu redis kayit bi def ko mu sàllasul xazaali détail xaraf yi ci biir wàcceeku ko am na lim ñuy bu ñuy jox am na tur yàlla bu ñuy jox tur yàlla boobu dañuy jël xaraf yooyu composé waat ko génnee la ci sa soxla am na bu ñuy fanaanoo tamit xam ne da ñuy jox tur bi ñu fanaanoo ko def loolu ñuy def avant ñoo tëdd loolu nag suñu xisbu la duñ koy dañ koy def chaque jour des fois bu ñuy jël listixaar yu bëri moom la ñuy def ñu jox tur yi rek suñu kiiyee ba pare rek après fa la ñu koy xool plupart yàlla defal nañu ñu ngi sant yàlla ku ñuy xoolal listixaar ñu gis la. loolu moom loolu moom maa ngi ciy sant yàlla bu baax. képp ku fi mu ku ma mos a wax listixaar xaw ma de xam nga nit ñi tam mën nañ am wor ma wala kersa ne la gis nga ma fekk gisoo leen loolu ñoom ñoo xam ak yàlla mais man képp ku ñëw si man sooy génn fii li may xamee ne gis naa la mooy dinañ juboo ndax li ma lay laaj di ma ko jox loolu nag soo gisee ça veut dire nit ki kon da nga ko gis. te maa ngi sant yàlla tam ñi fi ñëw ñëpp tamit vraiment yàlla rek mooy seede ñu ngi gis seen bopp waaw yooyu rab da koy def feebar da koy def mais rab moo si gën a gaaw parce que nit ki dina bañ am rab feebar waaw nit ki dina bañ a rab fekk def feebar mais yàlla def tudd jaasir ba pare kontor ko maa ngi ciy waxtaan ak soxna si ñu tiiñante si ne ko yàlla de koo tudd mais da ko weddi genre que yàlla dafa wax ne doo soxnay Ibrahim di saarata dafa ne man jaasir la du ma am doom am benn at bi mais yàlla di ko weddi may ko doom may ko Isxaaq yàlla demaat ba Zakariya tamit soxnam ni dafa jaasir du am doom yàlla weddiwaat may ko doom mais am na ku yàlla mayul doom te mu doon sey mooy Asiyatu bintu Mazahib te soxnay Firawna amul doom ñu li tax amul doom nag soo duggee foofu lu bëri la histoire yu bëri la ñi dem ñun Firawna musul yegg si ci moom musu ko xaraf maanaam virgin itam dafa dee yóbbaale ko dina sëq ak jëkkëram mais yàlla mun na loolu bu ñuy sëq du yegg si ci moom yàlla moo fay am na ñeneen ñuy wax leneen mbaam xuux la fa yàlla doon dugal nangam nangam nangam mais musul egg si ci moom ko kooku soxna yonent bi lañ ko pareel ëllëg amul doom kooku la ñu gis ni am na tamit yeneen jigéen yu amul doom koon jaasir bi tur bi am na te lu turam am am na mais yàlla moom da ko contre waaw kon ku mënul am doom amut ku yàlla dogalul mu am doom moo am <laughs> xaw ma est-ce que dégg ngeen ma nag waaw kon su nekkee nag rab moo ko jàpp rab bi dañuy profité pour faj ko te aussi rab da ngay dégg ñu naan faj rab te man loolu dama ko xaw a xaw a contre parce que rab kenn mun ko faj da nga koy dindi mën nañ ko faj mais am na fu muy toll déggin la nag rab dafa am ñetti façon dafa am rab am àndandoo am amun bu demee ba egg amun mënatoo ko faj dañ koy supprimer ci nit ki da ngay dem bu fekk fu mu logé ci nit ki nga buddi ko génnee ko supprimer ko complètement mu génn nit ki nit ki dem yoonam rab bi dem yoonam mais am na ñu réer ñuy réeral nit ñi di leen gëm loo nit munul munul dund sans rab loolu erreur la soxna si nit mënul dund sans rab loolu erreur la nit dafay dund sans rab rawxaan ak rab nag la nit ñi di jaawale foofu te yooyu nit ñi dafa mot a bàyyi xel baat olof olof dafay yàq baat ñi jàngul ñi duñu mën a tudd baat yi parce que da ngay dégg ku ñu tuddee borom xam-xam mais bu addoo ci alquran rek nga xam ne laysa bi aalimin wala tamit borom xam-xam la waaye nag nekkul borom xam-xam lu tax parce que man lam yattaqi rabbal aalamina fa laysa bi aalimin walaw afnal funuuna waaw loolu may lan mooy ki nga xamante ne ni su ragalul boroomam ci li muy jëf bu jeexalee téere yi tamit ragalul yàlla nekkul boroom xam-xam parce que xam-xam li tax nga koy pour nga mën a xam sa digganteeg sa boroom kon olof dafay faral di yàq baat yi ci ñàkk mun a prononcé ci arab rawxaan ak rab bokkut juróom-ñaar lañu dafa am malaaka mu am ay façon mu am nit mu am ay xeet mu am ay jinne mu am ay xeet mu am ay rawxaan mu am ay xeet mu am ay rab mu am ay xeet mu am ay xuddaam mu am ay kuskondron kon dafa baax nga xam ni tur yooyu nit munul dund sans rawxaan mais nit mun na dund sans rab te ku rab nekk ci yow sa affaire du baax même buy baax nee nga yaakaar ni dina baax dina xëy mu yàqu day gis koo xam ne day xëy di am di am ba nga xëy mu jënd benn oto bu bees tax oto bi ndaa daaneel ko rey ko kooku affaire am baaxut wala mu am magasin di commerce affaire bi di dox soo ko ne ni mu ne du ma laal gàllaaj affaire bi mu xëy magasin bi tàkk ah wala ñu sàcc alalam walla leneen c'est-à-dire que loolu lépp la nga koy yar rek naan duma laal rab da koy xool ci sa bopp bu nekkee ci yow nga génnee mu dem yoonam nga dem sa yoon amul nag nga koy neexal déedéet demal ci ku mën rek ñi mën ñi ñu ngi ci biir nit ñi ah du jeex man loolu soo wàccee ci mbedd bi laaj leen léegi nga dajeek ñoo xam ne man maa ko éliminer complètement jël naa fi ay rab yóbbu leen ba Gàmbi parce que su ma jàppee rab dama koy laaj foo bëgg dëkk ñenn ñi naan la seeraas ñenn ñi nga tubloo leen ay jinne la ñuy doon parce que su nekkee ci nit rab lay doon mais bu génnee jinne lay doon loolu leeral naa ko ci ay émission yu bari nit ñi duñ ko xam parce que jinne mooy ñëw produire si nit ki rab nga nekk xale bu jigéen di gént di sëy mais yow rab mu ngi lay jariñoo te pourtant góor bu la laaloon rek bëgg sëy yow da ngay bañ nga ne def ma violé nga yóbbu ko yoon ñu tëj tëj ko 10 ans wala nga jël yet dóor ko wala sa jëkkër bu fekkee benn waaye ci wetam eh, man su ma fekkee kenn sam wetu jabaram koy rey ah yow nga ñëw chaque jour nga tëdd rab di ñëw séyee la te bu doon góor moo ko sayee moo la séyee nga dénoncé ko ñëpp jàpp ko tëj ko te chaque jour rabbi bi séyee yow nii góor nii jigéen am na góor ñoo xam ne chaque jour bu ñu tëddee dañuy gënt di séy loolu di génn ñoom rab bi da koo soxla ko soxla parce que loolu leer la benn côté leer la benn côté doole la benn côté puissance lépp la amul mband mani rek ngay moo mooy li nga xam ne mënoo ko wër ci nit ne fii la nekk mook ñax waaw ak deret deret moom foo dagg mu génn dafa installé woo ci nit mais mani yu deret moo koy produire ñàq aussi noonu amul fenn fu mu nekk ci nit nga xam ne catu baaram yi sax dem ay day am mani yu mais bu rapport bi commencé wala amour bi ci la machine bi di commencé di ko togg waaw léegi nag yow loolu noonu nu mu chéré ci yow chaque jour rab yi ñëw jël ko te loolu ñu ciy jël des fois ñoom dañuy dem ba am si doom bu ñu amee doom ci sa yaram nag mooy dimension amun bi gën a kawe yow takk nga bu deñut da ngay dem ba xale yow suñu amee ci yow doom loolu ñuy bàyyi foofu da ngay jur xale bi xale bi du mot wala bu motee xel bi du mot wala bu xel bi motee muy jëf-jëfu rab di agressé di rey ay nit di fi yoole di sàcc mais xam ngeen ni am na jëf yu ñuy jëf ci mbedd mi nit piir du ko def nit ku nite juddu fi mu war a juddoo yaru waa kan moo judduwul fu mu war a juddoo yaru fu mu war a yaroo mel ni mu war a mel bu defee benn jëf ji rek du nit pire moo ko def am na lu participer ci jëf bi rab waaw loolu rab yi da koy def loolu laa la bëgg wax naan am na jëf yu ñaaw jàpp xale bu amagul treize ans nga tëddee ko te jigéen guddi yu nekk fii mais boo daree tëddee ñooñu demal ci jigéen guddi yi nga fay leen jox ko dix ngeen tëdd mu des yàgg yàlla foog yàgg yàlla la yoonu kenn nekku ci su la yàlla baalee yoonu kenn nekku ci bu la yàlla di mbugal yoon kenn nekku donte Sénégal na kenn du fi wax mais moo gin viol moo gën viol parce que ñoo ñooñu gouvernement bi ma ngi fii bàyyi leen jox leen ay kayit ñu am seen kayit yu volaabal ñuy dox guddi boo leen jàppee ñu génne kayit bàyyi euh, wan la nga bàyyi la ñu dem seen liggéey la donte nag liggéey bu ñëpp dàq la parce que ku koy def da ngay laqatu kenn bëggu ko mais loolu moo gën viol ñoo xamante dëgg rek hmm? moo léegi nag am na yenn viol yi yenn genre rey yi yenn genre sàcc yi yenn genre agresse yi yenn genre fen yi yenn genre teg dil yi yenn genre dóor martu yi nit ku nite du ko def nit ku nite nit ku nite du jël paak jëm moroomam non non non non ku am xol bu baax mënul loolu mais bu rab yi duggee ci yow di la énervé loo benn genre énervé bi boo ko defee ba pare da ngay toog fii di rëccu yoon jàpp la koo fekk ci prison bi mu rey nit boo toogee ak moom mu jooy loolu la bu koy def du ko tey waa loolu soo ko bëggee il faut nga delluwaat ci aalam yi te loolu dafay jël ay émission yu bëri ma détaillal leen ko par addina ak nan la bakkan yi di dundee avant nit ki ak biñ ko indee ci nit ki nan la fay dundee ak bu bëggee génn si nit ki di dem barzak fan lay dem ak soo demee xayaatul barzakiya maanaam ñun ñi nekkoon ci kaw suuf dee suñu maam yi am na fu ñuy dund nan lañu fay dundee ak bu parce que aalam yi juróom-ñeenti lañ émission bu nekk dinaa ko ci wax dafa am mulk malakut jabru jabrut xutb xutbaan qiyaama barzak muy neuf neuf monde yooyu moo am te bu nekk denc na beneen neuf moo tax awaalim yi dañoo bëri soo nee neuf da ngay gis àddina rek ñu ne cinq continent la ah continent yi ñaata réew moo ci nekk réew yi ñaata capital la ñaata région la ah ñaata départemental la ñaata commune la ñaata ñaata ñaata te fu nekk ay nit ñoo fay dund kon yàlla noonu la amee fa bakkan yi nekk ñu tuddee ko arwaax ba mu bindee bakkan yépp la bindandoo benn takkusaan dugal leen arwaax foofu kalaasi leen lan moo tax olof naan jigéen rek mooy waat ne dinaa jur yu si gi parce que bu yégee ne won na na toq mani yu chaque émission ma wax pour ñaax jigéen yi jigéen tey am na nag jëkkëram ñu tëdd mu yën ne mu yëg ne moom won na na li ñuy tuddee lor la ma koy tuddee lor tuddul woon lor sax durru la woon wan na na durru te mooy lor lor boobu mooy lan mooy yëg na ni ëmb na dafa war a commencer liggéeyal doom ji nan lay commencer liggéeyal doom ji mooy jëf bu mu jëf ci kaw suuf loolu loolu la doom ji di dunde loolu mooy lan mooy bu nekkee yéen na yëg na ne wan na la lor commencer muur boppam commencer def lu baax may kër gi jàmm di julli di jàng alquran di sangu di wird bëgg baax su demee ba am quarante su demee ba am cent vingt jours parce que bu mani toq mani bu duggee ci biir bu amee quarante jours day changé foofu doxagut mu amat quarante jours changé waat mu amat quarante jours changé waat soo leen soxlaa ci alquran ma indil leen ko mudxa maniyu mud nutfa maniyu mudxa alaqa fa kasaw na li isaama léegi bu amee quarante fois trois mu ne cent vingt jours mu nekk quatre mois ñu war ko indil bakkan bi mais bakkan boobu avant moo ñëw yàlla danaan malaak yi dem ngeen ngeen xool ndaw si jour bi mu wonee lor ba ci tey cent vingt jours yooyu nan la ci dundee malaak yi ñëw ne ah bi mu wonee lor ba tey dafa toog biir néegam ëmb ay cëram di góorgóorlu di jaamu yàlla ñu ne ñaata point la am ñu ne trois cent treize point la am exemple ñu ne dem leen cité trois cent treize ci fa bakkan yi nekk ci àddina boobu dem leen exemple benn dëkk bu tudd Sénégal ñu ñëw Sénégal dem leen den benn ka euh, raison bu tudd Dakar ci ni ngeen ko mën a déggee ñu dem Dakar dem leen Almadi ñu dem yàlla mu ne malaaki dem leen ci appartement sangam ñu dem ci apartement bi ne leen dugg leen ci salon 313 comme chiffre boobu lañ jël mu ne dem leen ci salle 313 ubbi leen carton 313 ñu fekk fa benn bakkan boo xam ne dafa war a nekk président wala dafa war a nekk wala dafa war a nekk kilifa gu mag parce que ndeyam numéro boobu la liggéey. mais bu nekkee dañu ne ndey ji bi mu commencé woon na lor ba tey def topp waa kër gi di xasak di weexal xorom ak di dangal di yëg ne di mbandak di fecc ak di triyaak di tiitaroo ne dama ëmb ak di sonal jëkkër ji kenn du nelaw guddik wàccu wàccu lu yéen ñëpp coona yàlla ne nan la def ñu ne ñëpp la sonal yàlla ne dem leen appartement deux cité deux appartement de salle de kees de ñu fekk fa benn bakkanu agresseur yàlla ne yóbbul leen ko moo ko liggéey wala benn bakkanu triankat wala benn bakkanu sàcc kon pour wax na ne nit ku nekk li nga am yaa koy liggéey noonu la yàlla di tëralee programme am su ko defee malaaka yooyu bu ñu jëlee bakkan bi pour war ko indi ci kaw suuf dañuy régler foofu benn ravin fekk nag malaaka yëpp daje wax ju gudd la de soo bëggee ma détaillal la ko malaak yi bu ñu dajee ah jeex na waaw kon dañ naan ah kii kat numéro cent 313 lañ ko jëlal nañ ko yóbbul nañ ko yóbbu ci ndey ji ñu régler foofu cent cinquante jours cent cinquante jours mooy cinq mois cinq mois yooyu mooy tam mooy plus quatre yiñ ko ëmboon amagul bakkan muy neuf mois mu judd ñu régler foofu benn tour ñu ko ab dawru waaw mooy tour ñu régler ko am lenn luy wër foofu bu jotee cent cinquante jours rek xale bi day judd bu yaayam nekkee ci kaw saret day judd bu nekkee ci kaw lal day juddu biir oto day judd matar ndikk day judd fu mu ko fekk day judd bu juddee kees bi nga xam ne moom lañ jëloon bakkan bi pour indil ko ndeyam ci suuf benn biddiw moo fay fenq biddiw boobu nag moo tombek dundu nit moo tax yàlla li muy jox nit ci biddiw boobu la koy jaarale biddiw boobu bu fenqee rek fekk malaaka yi jour bi ñuy jël bakkan bi di ko indi dañoo toogoon def réunion ki yore taar ñu ne ko malaaka yow yaa yore taar ñaata ngay may xale bu jigéen bi mu ne dama koy may bët day rafet dentition bu rafet la am bakkan bu rafet lay am ci ni ko mën a déggee ñu ni ki yore at ñaata lay dund mu ne soixante dix ans ñu ni yore wërsëg ñaata nga koy jox mu ne cinq milliards ñu ni ko yore ku nekk ñu laaj xataa éviteur karaw yi day am karaw gu gudd day am karaw gu gudd loo nit di am ci kaw suuf benn malaaka moo ko géré kooku day ñëw rek validé lii laa ko may ñu jël docier boobu déposé ko ci benn cabinet cabinet boobu benn malaaka moo fa toog xadru day féeti côté am nii xada féeti nii xadru mooy ndogal xadaa mooy atte ndogal day am ba pare atte soog a am su ko defee day toog uuf commande bi comme ni nit ki di uufee commande télévision bi mu yoree su biddiw bi fenxee rek malaak bi day commencé xool dossier bi ñaata la ñu mayoon nit ki mu commencé jàpp zappe mais buy zappe du joxoon ci nit ki parce que nit ki ban la yàpp bi ban la ak yax ak deret ak ndox ci biddiw boobu lay joxoñ su joxoñee ci biddiw boobu nag biddiw boobu benn leer la fay jël santrewaat ko nit ki moo koy transmettre mu ñëw ci nit ki léegi nag diggante nit ki ak biddiw bi foofu mooy dem ba am problème moo tax malaaka bi loolu nu muy mel dafay mel ne canal ngeen baal ma ma jik exemple ci canal bool canal bi dañ koy installé ci kaw def décodeur bi def télévision bi bool bi bu amul satellite normal di nga am décodeur di nga am nga di télé di nga am say yëpp mais doo am image loolu mooy diggante nit ki biddiw bi bu biddiw bi normalee rek bu bu biddiw bi normal di verse normal nag mooy canal bi mu ngi xëcc satellite bi bool bi jël ko jaarale ko ci fil bi décodeur bi décodé ko paas ko télé bi noonu la yàlla di santre wërsëgu nit ki ak am-amu nit ki wéru nit ki léppay nit ki ci biddiw bi biddiw boobu jël ko décodé ko xool li ci nit ki attan santarewaat ko nit ki te biddiw boobu dafa am cinq koñ koñ yooyu day doxee désordre day doxe ordre bu doxee désordre droite lay jóge dafay am un ci biir cinq ci bitti deux ci biir trois euh, trois euh, euh, quatre ci bitti trois ci biir trois ci bitti quatre ci biir deux ci bitti noonu lay demee boo jëlee nii day nekk un deux trois quatre cinq boo jëlee nii ci biir day nekk un deux trois quatre cinq buy tourner nag mooy tourner ndoo biddiw boobu ngay gis noonu buy tourne bu nekk day tourner waat beneen kon programme yàlla pour wax la ne noonu lay doxee léegi nag biddiw boobu bu demee ba versetul normal te ma kaay ma wax la foofu benn affaire. koo gis koo xam ne nit ki chiffre bi biddiw buy versé chiffre nit ki moo ëpp loolu nit ki xiiboon lay doon xiibon mooy ku dul wér day am ay feebar yoo xam ne du xam lan la sax waaw nit ki wéraakoon lay doon tuddee ko xiiboon su nekkee tamit biddiw bi chiffre bu muy versé moo ëpp doole chiffre nit ki nit ki borom jafe-jafe lay doon bu jógee tolof tolof bi dal ci tolof tolof bi indi dem dem ci sëriñ yëpp mujj weddi sëriñ yëpp naan dem naa ci diw ñaanal na ma dem naa ci diw fekk li mu lay ñaanal bu la joxee gàllaaj gàllaaj googu boo ko sangoo ci sa yaram bën bën karaw yii di émitéeru yaram yi ñooy jël gàllaaj gi bën bën yooyu benn biddiw bi moo koy servir benn rein comme ni naaj bi di tàngale yére bi nga fóot weer ko ba yére bi wow am na sax ñu ne mooy aspiré ndox mi loolu nga sang ci sa yaram noonu la biddiw bi di ko passé rein yooyu nga xam ne moo koy moo koy moo koy moo koy alimenté boobu gàllaaj gi mën a defee effet ci sa yaram kon sa diggante sa biddiw foofu foofu moo am problème bu normale sa lépp normal bu normalul sa dara du normal kon noonu la yàlla tëralee programme te biddiw boobu liy tax mu dem ba ñàkk normal ñetti mbir ñoo koy waral benn bi rab la ñaareel bi cat la ñetteel bi liggéey la ñett yi ñoo mën a tardel nit suwaat ñu liggéey la wala rab nekk ci yow wala cat nekk ci yow loolu su nekkee ci yow rek da ngay mais ku mu nekkul kenn mënu laa tere am li nga war a am te yàlla du wàcc di naan kenn dañ la liggéey wala da nga am cat wala nangam yow yaay xool ba xam ndax sa biddiw bi la yàlla booleel mu ngi versé normal moo tax olof naan bii diw la lan moo tax olof naan bii diw la bii biddiw bii bii biddiw diw la moo tax ñu naan bii diw la ñu tuddee ko biddiw biddiw bii diw bii diw bii diw la bu nekk ak bi lay versé boo demee ba versé tul normal am nga problème bu la àddina bi yëpp sàngee sa dara du baax rab nag dafa gaaw ci dem ba juyoo nit ak biddiwam kon rab problème bi gën a gën a ngànde tey ci kaw suuf rab la te wax naa fi lu yàggul ne deux mille dix huit bii nii cent vingt quatre mille rab génn nañ ci géej gi dugg dakaar man li ma xam man sow man ñi keneen xam xawma ko man li ma xam te mu wóor ma maa fi jàpp nga di maami kuuyu jinne maa ko jàpp maay waxtaan ak moom di ko jéem a mu ne ma su yeboo ngeen pare yéen ñi sëriñ yi nga xamante ni yéen nee ngeen yéen am xam-xam yéen ay faj cent vingt quatre mille génn nañu ren deux mille dix huit bi dugg Dakar ma ne ko mais ngeen dimbali ñu rek dem Seras ak ci yenn côté yi mu ne ma non non Dakar fi dafa am ay kër yoo xam ne du ma tudd benn famille waaw Dakar xam nañ leen mu ne ma dafa am ñoo xam ne dañoo sarte woon te nag ñun te li ñu sarte woon ak ñun defuñu ko parce que seen kër yi dañ ko jaay ñeneen ñëw jënd ko li ñu biñ ko jëndee liñ fa war a def duñ ko fa def moo tax ñun dañuy dem loosi foofu. moo nekk léegi boo leen loosee lu ngeen def mu ne ma dëkk ci yu jigéen ak ci xale yu góor mu ne ma ak lan mu ne ma ak ci paa yi ma nekk léegi boo leen dëkkee ci paa def mu ne ma paa boo fi gis boo amee cinquante dootul mun dara ma ne ko waaw ah loolu yéen a koy def ma ne mu waaw ñun ñooy dugg ci biir rey deret ji boo amee quarante ans rek ngóoreem day naa am benn jour ma woo ko waaw waaw man amu peut-être mun naa ko mun naa waaw ah? non non non yow ànd nañu yow ànd nañu Gàmbi ma fay yóbbu ay jinne ngay ragal waaw <laughs> ànd nañu ba Gàmbi ànd nañu ba ma fay yóbbu ay jinne pour ñu dëkk fa te duma leen boyal noonu rek ci réew jàmbur balaa ñoo dem dina dem ba loger loo fu ñu war a dëkk semaine bii nii rek am na ñu ma war a yóbbu Casamance ay jinne yoo xam ne dama leen jàpp ñoom ñee nañ Casamance lañ bëgg dëkk mais balaa ma leen di bàyyi ñuy dëkk foofu dama leen di duma leen waxtaan ak ñoom ba nga xam ne du ñu lor mu yóbbu leen ba fi ñu war a dëkk ñu loosi normal mu bàyyi la ma ñëwaat du ma wàññi dara dama koy def te su boobaa boo leen bëggee sama woo leen ngeen ànd ak man fu leen fu leen neexee fan yii rek waaw waaw kon kon rab noonu lay def waaw rab noonu lay def te am na ay cosaan am na am na ay waxtaan yu ma def na leen lan mooy cosaan bi fan la jógee fan la bàyyeekoo fan la jaar ak ban puissance la ko yàlla may lu mayul nit nan la mën lu nit mënul lan la xam te rab ak liggéey dañu li ñu tuddee njabar ak rab dañuy lonkoloo wax naa ko ci émission yu bëri parce que rab am na certaine rab wax naa la ay xaaj lañu am na certaine rab yoo xamante ne nii su tey soo ñëwoon tey ci sëriñ ne ko dama bëgg nga liggéeyal ma diw am na ñu koy defan ah, man na kenn ñem gu fi ñëw naan ma liggéeyal ma diw de mun naa la sax wax waaw mais du ma ko def nga perte dix perte nag te duma la delloo tous du liggéey nit léegi ne la taxzir la nag ñi dëgg arab xam nañu baat boobu taxzir la loolu mooy dama lay dama leen di tiital rek pour bu kenn ñëw di ma wax loolu ñu ñëw ne la liggéeyal ma diw mu bañ a sëy wala mu tas exemple yal nañ ci yàlla musal wala leneen gis nga loolu bu ñu ko defee bu ñu bindee liggéey bi ba pare am na fu ñu koy yóbbu soit dañ koy yóbbu ci armeel yi wala ñu yëkkati lu duus sëf ko ci wala ñu takk ko ci kaw garab wala ñu sànni ko ci mbalit wala ñu taal ko wala et cetera foofu ñu koy def lan moo ko fay jëli ba yóbbu ko ci ki ñu liggéey bu nekkee ki ñu liggéey mu ngi France ki ko liggéey mu ngi fii ma Serigne bi ko liggéey mu ngi fii ki ko sant mu ngi États-Unis ki ñu liggéey mu ngi France xoolal distance boobu seriñ bi nekk fi fii lay liggéey liggéey bi fii la koy def mais am na rab yoo xam certaines rab yoo xamante ne nii ñoom fajar rek la ñuy jóg su jógee fajar dañuy jóg ñëw jóg di wër fu ñuy def liggéey yu bon yi bu ñëwee fekk. exemple kenn liggéey na kenn ñooy jël liggéey bi fajar bi yóbbu ko ci kooku sànni ko te bu ñëwee di la ko sànni am na position bu ñu lay fekkee ngay tëdd dañuy ñëw dugg si yow moo tax xataa loolu diñ ko jàngale moo tax tëdd fajar gisuma lu ko gën a bon ci kaw ci ci àddina nelew fajar gisuma man lu ko gën a bon man sama bopp gisuma ko moo tax yonent bi nañ asalaatu xayrun min an nawm heure boobu même boo deful dara da nga war a jóg même boo deful dara parce que suñ la liggéeyee rek heure yooyu la rab yi di indi liggéey bu ñu la fekkee ngay tëdd tëddee ndeyjoor dañ lay sànni liggéey bi dow bu ñu la fekkee ngay jaaxaan dañ lay sànni liggéey bi dow bu ñu la fekkee nga tëdd càmmoñ dañ lay sànni liggéey bi nga dow mais bu ñu la fekkee nga dëpp dañuy ñëw loosi woo ci yow moo tax kenn du dëpp tëdd dëpp tamit gisuma lu ko gën a bon baaxut kon nga xam ne rab liggéey kese kese kese kese saa yuñ ko defee rek rab di ciy participer dafay ñëw jël ko yóbbu kon nga xam ne rab tas na dëkk bi waaw xale yu jigéen yu bari mun ñu sëy mun nañ sëy parce que dañuy mel ni ñu war a mel dañuy rab mais li mu lay gëmloo gëmloo na ne ah xaaral xaaral ku am lii ku am lii ku am lii ku mel nii chaque jour mooy nekk ci sa biir bopp bi di la énervé loo ngay yaakaar muy tas boo waxee nit boo nga ne waaw suba nga xëy ne déet doo am benn jikko doo am liggéey jàng ba li nga jàng yëpp jeex topp di wër loolu lañ tuddee manque sens manque sens boobu nag rab moo koy def si yow boo ëmbee mu tuur ko boo seeyee ba pare mu génneek parce que avant ngaa seey ak sa jëkkër day gaaw profité seey ak yow loolu feebar la te rab da koy def ma wax leen yu bëri ñu ngi nii bu ñu seeyee ba pare bu ñu xoolee seen kanam day fekk li fa seen jëkkër def day génn ci bitti loolu saa yoo gisee day fekk nga am rab avant ngaa seey moom mu seey boo seeyee bu seeyee ba pare boo seey sa jëkkër la war a jàpp doom day génn si bitti rab moo koy def wala lu yàlla xam doy na ngay bañ sax rab lu nekk la lay def loolu wax naa dina yóbbu nit sawara lan mooy loolu day dem ba booy julli doo xam ñaata rakk ngay julli day dem booy booy julli say affaire day gën a dëgër booy def lu baax sa affaire day gën a dëgër waaw yëpp da la koy xirtal booy jaamu yàlla sa affaire day gën a metti day gën a dëgër day gën a kii waaw soo xëyee sa julli woo keroog nga am ñaar téeméer wala ñaari junni waaye boo xëyee di jaamu yàlla moom keroog lay gën a dëgg loolu lépp moo la ciy puus di la énervé loo di la weddiloo nit ñi di la saagaloo di tàngal sa xol di la xalaat loolu bon di la njaalooloo di la defloo façon bon bon teef bu nekk loolu kon xam nga ne rab dafay def defloo nit lu nekk kon jot na nag nit ñi dem ci ñi ko mën ñu dindil leen ko